ci seen chaîne bii di FM ñu ñëwaat ak yéen si li xew Sénégal comme ni ñu koy defee saa su nekk rek indi leen rappel actualité wu Sénégal bi xew ci semaine bi. liñ ciy njëkkee tey nag bokk na ci euh, grève bi nga xamante ne nii élèves yu Sénégal yi defoon nañ ko semaine bi génn waaye tamit euh, locales yi euh, contestation yi nga xamante ni am na ci résultat. officiel yi génn ci wàllu banlieue banlieue wu Dakar ba ak fële ca Thiès waaye tamit euh, bokk na ci euh, li nga xamante ne ni xewoon na fa ca euh, Kër Massar ca résultat yi candidat boo nga xamante ne nii jàppoon nañ ko foofu ci jour élection yi waaye tamit euh, ca Gambie dinañ fa dem wax leen lafa jot a xew a ah, diggante armée ba ak euh, mouvement boobu di MFDC rebelle ya fa nekk balaa ñuy dem rek ci euh, association ànd jikko ànd sàmm jikko yi li nga xamante ne nii wax nañ ko jëmale ko su député yi waaye tamit président de la république yi xamante ne nii àdduna ci wax ci li nga xamante ni moo di loi boobu jëm ci wàllum homosexualité bi balaa ñuy jeexal rek ak bi ñu koy defee saa su nekk ak be. dañuy daal di commencer ak euh, li nga xamante ni rek moo xew ci élèves euh, école yi Sénégal yi école publique yi ñoom nag daanaka école yëpp génnoon nañ ci semaine bi ñu génn def ab grève générale génne seeni morom yi nga xamante ne ñoo ne ci école privée yi ñoom li ñoom kan li ñuy sàkk moo di état bi wax ci seen wàllum njàng mi ah, dimbali leen ba seen professeurs yi mën a ñëw ci seeni classe jàngal leen ngir ñu mën a recevoir seeni cours normalement bu ñu jógee foofu dinañ dem comme ni nga ko waxee ci début ba ci euh, résultat électorale locale yi ah, léegi du ko du ko jëmee ci wàllu euh, contestation yi nga xamante ni am nañ ci bu ñu demee fële sa Thiès xamoon ngeen ni amoon ab xëccoo bu fa amoon diggante nguur gi ak opposition bi waaye nag li résultat officiel yi joxee rek moo di ne opposition bi moo fa jël ndam li ah, lu ci mel ne wàllu waa coalition Yewwi Askan Wi ñoo jël ah, li nga xamante ni moo di cees ville ak commune yu bëri foofu ca Thiès ñoom ñoo ko gañe waaye nag ah, nguur gi ñoo waa coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñoo mujjee gañe résultat yooyu nga xamante ni moo jëm ci wàllu département bu Thiès boobu. ba tey ci contestation élection yooyu rek fii ci Ndakaaru fa fële ca Rufisque tamit amoon na ay xëccoo yi fa amoon waaye nag diggante nguur gi opposition bi waaye nag gii di euh, ginnaaw résultat officiel yi ba mu génnee ah, gis nañ ni opposition bi ñoo gañe foofu ci Rufisque ba tey tamit ci pikin ah, ah, gis ngeen ni tamit amoon na ay xëccoo yi fa amoon diggante euh, ba tey nguur gi ak opposition bi rek waaye nag mujjee nañ jox euh, résultat yi ku ñu wax ne moo mujjee gañe moo di waa nguur gi kii di Ablaye Timbo jiite woon listu ville de pikin ba foofu moom moo mujjee gagné foofu ci Pikine waaye nag ba tey contestation yi ma nga fay dox ndax ñii di waa coalition Wallu Askan Wi def nañ seenu recours euh, engager ay avocats yu bari euh, ngir euh, saytu mbir moomi ndax ñoom nee nañ foofu noonu duñ nangu kenn gañe leen fa ndax ba tey élection yooyu dafa amoon ay irrégularité foofu noonu ay yoo xamante ne yu yu yu yu fi fa amoon ñu ci mel ni ay bureau de vote yoo xamante ne dañ leen fa déclaré woon ne amuñ fa dara waaye tamit ay bureau de vote yu bari yoo xamante ne dañ ne ah, kii di nguur gi dafa fa gañe ci lim boo xamante ne nii daanaka ña fay voté sax tolluñu noonu ba tey ci wàllu élection yooyu rek kii di waa nguur gi ñoom ña ngay réclamer ne ñoom ñoo gañe élection yi fépp ci Sénégal ginnaaw buñ jugee ginnaaw bu ñu jegee jógee euh, Ziguinchor Dakar Diourbel ak euh, Kaolack ak lu ci mel ne cees ñoom nee nañ li ci des ci euh, li ëpp ci élection yi ñoom ñoo ko gagné ba ba ci kaw nag kii président de moom nee na moom majorité am ba léegi amul sax mi ñu ci lam mu ngay mu nga mu nga fa mu newoon ba tey. ci kaw sax mi ngi naan ne gagné élection yi ni ñu ko gañee mi ngi ci ak quatre-vingt pour cent maanaam téeméer boo jël rek juróom-ñett fukk ya ñoom nguur gi nee nañ ñoom ñoo ko gagné. bu ñu jógee ci wàllu local yi euh, dañuy dem ba tey sax ci local yi amoon na xam ngeen ne ab candidat bu dëkkoon fële euh, ca Kër Massar bokkoon ci coalition boobu di gëm sa bopp Euh, mouvement gëm sa bopp amoon na ay euh, daanaka ay ay agressivité yoo xamante ni amoon na fa ay xëccoo yim amoon na ak benn responsable benn bokk yaakaar ba responsable boobu këram am ñu ko taal euh, ba ab xale bu toll ci ñetti at ak maamam daal ci am ay gaañ-gaañu yu metti ba ñu hospitaliser leen fële ci hôpital principal bu Ndakaaru waaye nag ginnaaw loolu am na ñu doon wax naan ne ah, euh, jigéen jooju di tudd ci na Dieynaba Ndiaye ah, moom lañ ko jiiñoon ñu daal di koy convoqué nag fële ca gendarmerie bu Kër Massar waaye demul woon waaye nag gis nañ ne jour élection bi ah, ñii di gendarmerie ba mu ñëwee di voté si rek daal di nañ koy intercepté ca centre de vote ba daal di koy arrêté mais waaye nag buñ jigee foofu. mujjee nañ ko bàyyi mu ñibbi këram ca ëllëg sa rek ci lundi ba ci lañ ko convoqué mu daal di ñëw ba mu ñëwaatee nag ca lañ ko téye bañ ko téye nag ñu téye ko garde à vue mujjee ko jébbal ki nga xamante ni moo di procureur de la république euh, euh, fi mu toll nii ñuy wax ak yéen ñoo ngi ko defeere foofu ca parquet ba yoon teg ko loxo. ba euh, bu ñu jógee foofu ba tey dañuy dem ca Gàmbi dégg nañ nag ne am na ay attaque yu fa am ah, diggante armée wu Sénégal ba nga xam ne ñoo fa nekk ak ñi nga xamante ne ñoo di ay ay rebelle yu ne foofu ñu ne ni naan nag ah, li ñu waa Seneweb xamal rek ñu ngi naan ay waa MFDC MFDC la ah, rebelle yu ca Casamance waaye nag ñu ngi xam ne rek ca attaque yooyu am na ay militaires yoo xamante ne ni jot nañ ca ñàkk seen bakken waaye tamit am na lu ci tolloog lim boo xamante ne muy juróom-ñeenti militaire yoo xamante ne ni xamuñu ba tey fan lañ nekk lu ci mënti am rek topp information bi ba am ci lu gën a leer daal leen koy indil buñ jugee foofu dañuy ñëwaat fii ci ndakaaru association ñii di ànd sàmm jikko yi ah, ñuy xeex lu jëm ci wàllum ngóor jigéen xam ngeen ne loi ba ñu dugaloon ngir ñu voté ko député yi mujj euh, rejeté ko ñoom nag ñaawlu nañ ko indi ci seen tontu daal ne nag député yi dañoo trahir li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg askan wi waaye ñoom nag dinañ continuer xeex boobu ba ci kaw loolu nag ah, joxe nañ rendez-vous 20 février bii ñu jëm ne dinañ amal ab rassemblement bu mag fépp ci euh, Sénégal ah, ngir ba tey xeex loolu nga xamante ne ni ah, moo jëm ci wàllum góor jigéen ñi ñu ngir ñu criminaliser ko fii ci Sénégal ci kaw loolu nag a kii di président de la République rek euh, euh, rek euh, recevoir na ñi nga xamante ni ñoo di imaam yeeg ulema yi ci Sénégal euh, fële ci palais de la République ba daal di waxtaan ak ñoom daal di leen xamal ne rek ne euh, ne moom tant que mi ngi nekk njiitum réew mi du nangu fii ñuy dépénaliser li nga xamante ni moo di ngóor jigéen maanaam ñuy teggi daan yi nga xamante ne ni yoon teg na ko ci kaw ngóor jigéen dane nag loi boobu amul solo yu bari pour ñu voter ko ndax li nga xamante ni moo di ngóor jigéen dañ ko daal euh, euh, euh dañ ko daadi téré tere fii ci Sénégal te ku koy du ñu gis ñu koy def ah, dina yoon dina teg dina dina la teg loxo daanne nag mi ngi ñaaw li nga xamante ni moo di ñenn ñi ci euh, dëkk bi di ko jël di ko di ko di ko def di ko di ko di ko di ko campagne yi di ko di jaxase nguur gi ak ñi nga xamante ni ñoo di population sénégalaise ba ci ñuy jeexalee rek moo di li nga xamante ne ni ah, moo xew ci kaan bi li xew ci kaan bi nag ñu koy indi saa su nekk la xew ci kaan ba nag moo di Sénégal ah, équipe nationale bu Sénégal bi daan na qualifié li nga xamante ni moo di ah, quart de war ci jàkkaarloog équipe boobu ñuy naan Guinée équatoriale ci dimanche bii ñu jub si ginnaaw 19h bu jotee waaye nag li ñuy xam ne rek mooy ginnaaw. gisoon ngeen match bi passé Sadio Mané gaañu gaañu yam ci amoon ba tey ñu ñuy xamal ne rek mi ngi ci jàmm waaye tamit am na uh, beneen joueur uh, boo bu ñu naan Fodé ballo ture moom tamit amoon na fa gaañu gaañu ba ñu daanaka ñu ne uh, gëmuñ ne dina joueeti match yi nga xamante ni moo des ci ci kaan bi ah buñ jógee ba tey ci Fodé Ballo-Touré beneen mauvaise nouvelle bi moo di kii di Bamba ñu ngi ñuy xamal rek ne dafa amul tamit moom gaañu gaañu ci ci ci genou ba ah wóorul ba tey moom it mu joué ci quart de ñu jëm lu ci mënti am rek ñu leen di souhaiter bonne chance suñu suñu lion yooyu ngir ñu daal di continuer seeni activité ci kaan boobu daal di ngir daal di mën a jël ah, li nga xamante ni moo di coupe bi indi ko fii ci Sénégal lii lañ leen indiloon euh, mbokk internet yi di leen jaajëfal bu baax euh, di leen di daje beneen yoon incha allah ci yeneen information yi ci seen chaîne bii di FM TV ngeen jëf.